salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy topp ci internet bu rawatina ci chaîne bu muy Serigne Djily TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di baal xaq leen koy baalu ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak tawfiq ak saadatu daare ñu ngi koy sàkku ci yen mbokk yi ñu ngi leen di ziar ci àjjuma ji di leen wax àjjuma mubarak comme niñ koy ànd ak yéen ci àjjuma ju nekk rek ay tegtal ñaar yu bàyyi ko ci alxuraan ñu jàpp ne dana leen amal njëriñ tamit lu yomb def. xam ngeen ne alxuraan nag ni mu nekk shifaun lima fi sudur noonu na nekk shifaun lil abdaan maanaam ni muy faje xol yi jubale ko ak boromam subhaanahu wa taala defaraat ko di ko faje rawxaaniyaam noonu lay faje ak wéridi yaram noonu la koy joxe kaaraange it kon alxuraan ah, lépp nga ci alxuraan Euh, te benn saar wala sax benn aaya nit mën na cee jële ay njariñ yu bare bare yoo xam ne sax du tax mu jeex kon alxuraan ku ci nekk rek mën nga caa tibb la la soob tey nag ñu indi leen muslaay goo xam ne gu baax la ci su fekkee da nga jëm ci barab boo xam ne danga koo ragal wala dëkk boo xam ne danga koo ragal na foo xam ne da ngay da yaakaar ne ñu ñuy tooñ lañ comme niñ ko waxtaanee woon suñu émission yi passé wala boog barab boo xam ne dañ lay fexeel da nga ragal ñu lay fay fexeel bu ko defee da jàng saar wi ñuy wax sóoratul bayyina sóoratul bayyina saar la bopp euh, mi nga wàcc ci Madina ci wax yu gën a lëng moom nag juróom-ñetti aaya rek la te saar wi di di di wax ci yahud yi li gën a bari euh, seenug caay-caay ak yu mel noonu ginnaaw bi <clears throat> borom bi subhaanahu wa taala yéen yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa te ñoom ci seen bopp ñu jàngoon ko seeni téere yi bi yonent bi ñëw ñu weddi ko man nga ñe ci tënk loolu la saar bi di di di feeñal su ko defee su fekkee da ngaa bëgg da da jëm ci barab boo xam ne danga ko ragal moo xam kër la goo ragal wala nga ragal ñu la fay fexeel moo xam pexem zahir la wala pexem batin moo xam dëmm la moo xam jinn la yu mel noonu wala ab dëkk yar yëpp mën na ko kër wala dëkk wala yu mel noonu bu ko defee euh, boo demee ba jub ko rek da ngay jàng wala boo demee bay dugg rek nga xam ne da nga fa am diir boo ko mën a jàng nga tàmmale saar wi jàng ko benn yoon ba mu jeex su ko defee nga raay ko sa kanam soo ko dugg booy génne tamit nga def ko noonu moom it ngànnaay la loo xam ne incha allah bu fekkee barab boo ragal nga def ko dugg fa pexe yuñ la fa mën a laalal pexe yooyu da nga xam da ko xam maanaam daal yàlla dina na dimbali ba du sotti ba noppi da nga da nga ko xam moo xam pexem dëmm la moo xam pexem nit la ak yu noonu. Euh, noonu rek na nga koy jànge muy saar boo xam ne lu baree bari lu ci mën a euh, liggéey la des na ci dot des na ci téye sax saytaane moom saar woowu euh, moo tax saar wu kiimaane la mu nekk sa ngànnaay barab boo xam ne daal ragal nga ko nga xam ne lu mel ne jinne wala lu mel ne saytaane wala mel ne ay dëmm nga fa ragal sooy dugg nga jàng ko som yàlla dana la yàlla dana la fa musal ba nga ci barkeb saar woowu te booy génnit nga jàng ko moom it sa ginnaaw kenn du la fa mën a dara incha allah kon mbokk mi loolu lañ leen indiloon tey jii ci ajuma ji doon ko barkeeloo muy saar wu màgg woowu di lam yakunil lazina kafaru te muy juróom-ñetti aaya muy saar wu am am am njëriñ kon ma lay fàttali ngay way di abonné ci chaîne ma di ko tasaare ndax bokk na ci li koy yëkkati ak li koy dundal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.